1937 ci siècle bi passé Moi, at mi Baye Niass njëkk aji Makka di 1356 de l'hégire ajam googu ba muy laata dem faire fekk plénitude qu'elle kenn weranteetu ko parce que lim njëkk produit produire pour yar jullit ñi ci tijaani ak lu dul tijaani ñu ngi koy wax ruuxul adab boobu vingt et un ans la am xam nga nag euh, dem ba am trente sept ans ci activité njiitu fayda beeg diini ji euh, tax na bi muy aji euh, booba macha allah yàgg nañ cee bind sax ba mu ajee nam jaar yëpp ba nim ñibbisi dafa ko bind moom ci boppam moo tax témoignage bu jógeewul rek ci textam yooyu mën na am xëy na mu juum dafa bind ay note de voyage rihla nee na su ragalu toon téere ba rëy jéego bu mu jéego à l'aller comme au dina wax fu mu ko teg ci sunna ak yi dégg leen leen rek la bañoon a ci téere boobu mooy les coups les coups dafa ragal ku ku ku ragal dépense faf tayal ba du aji moo tax tuddul kuy pertinence euh, ca ajam googu yu bari xëy na ci yu dëpp ak lii ñuy wax ci kanam mais nag dañuy rek euh, yemagum ci dajeem ak sultaan biñ doon wax Abdoulaye Ben Abbas Bayero mooy bàyyi buur bi fi nekk tey euh, kii Ado Bayero buuru kanu la woon mais ñi ngi ko boole ci ulamaaw yi dafa mënoon jàng ci lislaam ak euh, langue arabe bii dimbaleen di ci dégg lislaam am diine lool nekk tijaan mais nag ba mu yeggee madinal munawara et je répète madina la dajeeg baay baay moo ko bind ci téeréem moo ko waxaat gannaaw gi plusieurs fois ci làmmiñam euh, mag ñi fekke woon fii itam bi mu fii ñëw ak ñenn ña fekke woon ba muy dajeeg buur bi ñëpp confirmé nañ ne seen lieu de rencontre et on répète ça jamais assez Médina la du Màkka euh, foofa ca Médina bàyyi wax na ñëpp bind nañ ne daf daan def bis bu set bu jullee fajar boo dellu dalam ba mu naaj day ñëwaat nag foofu ci jàkk ji nga xam ne yonent yàlla Muhammad nee na maa bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna diggante suma néeg ak suma minbar bi fii moom aljanna la dëkk dafay ñëwaat nag diwaan yi mu jotoon na pare comme taysirul wusul comme saadaat ci tagg yonent bi dafay ñëw foofu di ko jàng door a dellu foofa nag fa la ko nit ku am daraja fekk عندك أي نت نيو أم درجة عندك مودون بورو كانوا بابو عبد الله بن عباس بايرو أه، تبوتي تام خمنا باين في باي وخنا ني سما خريت ديو احمد طيب دي شريف يعني غسرت امام شافعي لا ndax japp na ci baye mom mo yeugal bour kanu bam xamanté ak mom wax ko présence cheikh ibrahim niass fi ci medina mudiko set nak Euh, ci li ñu xam ñun mooy euh, avant loolu amutoon idée ci Baye yow dama laa gis gis na yaa ngi toppatoon nangam ma gis koo xam ne yëg naa ne daal dara pa fa passé wu ko ca ma ma laaj la biir am na ku fi nekk day ku mel nangam mu ñëw ci Baye gis ko gëm ne mooy kim doon mébét luy kum doon mébét am na loo xam ne maanaam Baye nee na bam mu dajeeg moom. mu ñaan ko ne dafa bëgg mu eesalal ko wirdoom doom euh, bàyyi ànd ak moom tournée ba fa ñuy ziara parce que foofu ñuy wax rawda foo nga defaat tour rek ba jox penku gannaaw jubloo fi ñuy ziara yonent bi aj ga bëriwul nit 1937 bëriwul nit euh, foofa la ko yeesalalee wirdu li ñuy wax tëjdiit ak ku bëgg ci ñam àndoon ak ña àndoon ak moom ak nag euh, ku bëggoon wirdu sax mu jox la booba situation bu gën naa yomb ci ni mel léegi léegi dañuy léegi jege foofu lu jafe la sàkkaat di maye wérdu buur bi nag wax na bàyyi loo xam ne bàyyi bindu ko ci rexle bi bàyyi def na rek jàpp na ci moom ànd ak moom li des yëpp nag ci aj gi ñu dem Makka Minan Arafat Musdalifa ba ñëwaat Makka daanaka buur bi mooy bëkk néegam buur bu mag boobu foog ñu fàttali ku xamul tradition kanu ne ñaare buy romb ci mbedd yi am na ñoo xam ne awsa yi dañuy yës ci suuf am na sax ñuy fëgg suuf naan ko rankay da di rankay da di mel daal dalal yow suuf àndal ak sa sago ku mag a ngi jaar ci sa kaw ku mag kooku nag yàlla ko gën a mag ba mu bëggee yàlla moo tax mu mu mu mu xamoon na lim mu doon ut ba muy tàggook bàyyi bi aj gi jeexee ci la ko ne daal bëggoon naa boo ñibbee ba dal daal nga gane si ñu kanu autrement dit lim mos tondi na ko te itam xëy na bëgg na ko tàllal ci peuple am ndax xam nga ne buur bu xam liggéeyam lu baax lu mu am yéene ko réewam mais nag benn détail laay wax mooy détail yi nga xam ne am na ci seen jotaay boobu am na ci lu baay bindul ci rexla bi mais nag yàlla baaxee na ma benn bés man ak benn professeur nigérien bu ñuy wax professeur Adobayo Adebayo ak kam andalon joge Dakar comme interprète ak bay rek ñoo nek ci neeg ba ci Kaolack waji bi ñew ñu introduire ko mune bay man mangi ngi jàngale ci institut supérieur bu jangale droit international ci Lagos ci Suruleri quartier la dama damay bind téré bo xamné sujet bi moy relation Nigeria ak Sénégal ma xam ne yow ci lolu ponk bu mag nga ci may ñëwoon ba fii nag tey pour laaj la yow directement kañ nga commencé jokkoog Nigéria bàyyi nag di wax récit bi ñu koy traduire waaj moo tax ma xam affaire bi li baay bind ko ci raxla bi mais ci yim ajouté la ci bàyyi mi ngi yu bëri mu ne buur bi daf ne ko ba mu ko nuyoo daf ne ko daal defe naa ne suma yaakaar ji ma doon yaakaar ci yow lay dëggoo mu ne ko lan la mu ne ko dama mësoon lii suma baay ak suma maam yëpp nekkoon buuri kanu ci Nigéria taxu daal ma ne automatiquement war naa nekk buur may ñaan yàlla pour que ma nekk buur ndax du ko sa baay nekk buur rek nga nekk buur mu ne ma doon ko ñaan loolu la ma baay wax mu ne doon naa ñaan itam gannaaw bu ma yégee suñ suñ famille kenn musu cee aji màkka benn buur musul dem màkka ba ci moom kooku détail la bu jar wax mu ne may ñaanal yàlla waaye waaye su ma nekkee buuru kanu yàlla na ma yàlla may ma mottali suma farata dem Makka mu ne bàyyi nag seetlu naa ne léegi may amiru kanu kooku ñaan nangu na ñu ngi nii Medina jëm Makka di aji kooku ñaan nangu na bi ma dese woon nag mooy dama bëggoon sommité daal laa bëggoon dajale ci tariqa tijaaniya ku doon lu Cheikh Ahmad Tijaani mu beesalal ma suma ma ndax man tijaan la suma ma bàyyi tijaan la suma ma maam tijaan la ah, comme li ñuy wax ci langage yu Sénégal ko xam bàyyi wekkiwul dafa daaj daal euh, bàyyi dali ànd ak moom nag nee na comme ni ma waxoon sànq euh, daal di koy tëj di tëj di lu ñu xam la mooy pacte bu jaar seen diggante ànd ak moom da ngay imagine nag da ngay imaginer nag ne ku toll noonu di wut ku tol noonu ñu dajee Médine ba aj gi jeex ñu nekk ensemble ba tàggoo wóor na ma man bàyyi mi ma xam ci générosité ak bu gisee suuf su jara ji dara wóor na ma ne buur boobu am na chance bu unique nga xam naa ne bàyyi sotti na ko li mu ko war a sotti yëpp parce que fekk na mu am xam-xam fekk na mu nekk nit ak diine waaw nag léegi kon daje nañ nek na taalubeem comme taalube mais taalube bu vraiment am distinction ndax xamna bi muy laata ñëw aj gi jeex na bay ñibbi na 37 wan nadmi ida hawa ma dalla saaxibukum وما غوى وما وما ينطق عن ديار بينك جيخي بعد من في رحله كنا كريبو مك مويلين في رحله بين وخنا نفخات بس نك مو ديسيدي بور بايكم دم فاسكي مي نيو نيجيريا كناك خمنا ني كليما دابري غير ترانسبور يومبول ساك ساك ترانسبور ايريان مي نك باي جوغنا دم بانجول ام فاي فان يو ام اكتيفيتي بيندنا كو سي ام بوبا بنين jam naa fii waar naa fii dem naa ci rajo bi di ba bés nag mu dem kuy yundum c'est l'aéroport de de euh, xam naa yàlla digal na ko mais li ñu xam daal mooy keroog amuñoon réservation xamuñoon ne avion dina fa jaar mais yàlla def avion jaar fa boo xam ne pilote ba copilote ba ay anglais lañ ba ñu dalee ku tour de contrôle bi xamutoon avion boobu mi ngi ñëw waa ji ne ko non dama yëg ay pépins ma ne comme fii moo gën a jege ma fi ba xam seet lan la ba mu vérifié daal gisuñ lu mu gis mag ñi duma ci du ma ko guddal ñaan ko mu yóbbaaleen seen gan gi mu yóbbu ko ba Sierra Leone bàyyi wàcc fa liggéey fa wax na la fa def yëpp takkuraadi sax takkuraadi la dem doora ñëw Sierra Leone masa aqul déedéet maanaam ñëw Sierra Leone laa wax jóge fa dem takkuraadi takkuraadi port la ci manam manam ci Golgos joge fa dem akra neena lam gis ci xetu lëndëm taxoon mu na ndax ñii li yonent bi daan oote egsi ci ñoom déet baba akra mu liggey fa lol ci diine ji dama koy gattal après continuer dem Lagos ci Nigeria, Lagos comme voyageur ordinaire bu ñëw ñu ne ki dalal Sénégalais mu dem ci kër benn yoruba bo xam amna sax un petit détail bay nee na waa jooju daf koy yéem ndax fajar ñeppay julli même xali yu tuuti yi tàkkusaan noonu mais tusubaar dara timis dara gaye dara bay mu ma gaaw man jógee fa dem waaw ba kanu moy li ñuy wax dafa egsi kanu mom kenn and depuis tukimi, je crois que c'est la seule fois depuis moom kenn ànd bi mu yooyu di laajte di laajte fexe daal ba egsi daal ci ci palais bi ci benn ci géet yu mag yooyu ndax palais bi dafa am ay géet ñam fa gis mu laaj leen pour gàttal wax ci euh, ñu wan ko ne buur bi yow loo koy de mu ne leen wax leen ko ne sëriñam moo fi ñëw waa ji sax dëgg naa reetaan ko mais nag muñ na pour woon ko ne buur bi amul amul sëriñ kii ci moom la lislaam yem waaye nag yàlla def kenn ci ñi nga xam ne

nga xam ne am naa tur yëpp ñu ngi fi euh, nekk ci wetu jàkka ji euh, bàyyi xam nga kañ la egsi fii ci tukki mooma un samedi ci weeru ndey ji koor mooy rajab nga xam ne benn weer dox ci gënte mag koor ga euh, mu fi déparé juste ajuma ja ci topp samedi la fi am dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi juróom-ñaar juróom-ñaari fan mu départ fekk mi ngi taw kenn ci chroniqueur yi nga xam ne bind na ci téere yi nga xam ne manuscrit bi la ma yónnee moom ne nee na bi bàyyi di départ ñoom ña nga xëy di liggéey seen tool yi donc mu ngeen bëri dafa sibbi way na ko chara woy wa di gërëm Baye Baye ba mu ñëwee nag gisu fi mbooloo moo xam ne moo leen impressionné ñu gaawantu dugg déedéet ay benn benn la fi gis gannaaw buur bi bu daloon sax ci biir kër buur bi du leen gis waaye daf leen dafa dal ci daf ko dal ci biti alors bokk na ci ñi ko gisoon maalam salga bàyyi muy dis magi muy dis algam mi bokk na ñi ci fekkoon ña ko maalam Tijaan yi bàyyi Bachir mi amee amee mu euh, bokk na ci ña ko gisoon euh, maalam gunni alors bëriwuñ la ca des xam nga ku ko lu ko liggéey téere baay bi ñuy wax kashiful albaas an faydatil xatmi abil abbas moom téere boobu nga xam ne baay ko consacré uniquement ci li ñuy wax al fayda tijaniya utal ko benn tasiir muy ñaari livre yu ñu boole ci benn Ben volume téré ba mo def le reste am ñoo xam bañ ko gissé fi téré ba ñoo set date biñ ko imprimer ak date biñ ko bind ñom dañ fogo ne kilifa gu bax gu Sénégal la euh manik ni nit ñi passé bu yagg diggante bi fi bay joggé ak biñ commencé dem ñom diko feki. fekki am distance entre temps Baye Serigne mbay ñas mi ñëpp xam ci pegg Baye di rakkam di siggi làgg xam-xam Baye doon ko tuddee magu taalibe yi ak sëñ Aliou Cissé mu mujj nekk premier xalifam ñoom ñoo fi jaar di aji comme aji jiiri station bi ñu am kanu yàlla def ñu fañ dal am ku leen dégg na ñaari borom xam-xam la mu wax ko maalam saani mi defar kaafa kaafa mi defar téere boobu mu yónnee woon ci chronique bi ànd ak ñoom ñu dem seeti ba ñuy waxtaan ba mu yàgg mu yéen seen nit ku mag mas na mu ne ko mooy ku ñuy xalaat Ibrahima Niass ah kooku ne ko kooku mi ngi dund kooku mi ngi dund mu ne waaw kii rakam la mu ne ñun téeréem lañ gis mu mel nii mel ni Mesh Ali ibn al Hasan mi defar préface bi doy na waar mu ne ko mi ngi nii ñom rek ñu bëggoon gaa ñi fam aj tok fi commencé mouvement bi xew tay ñu né der ñu dañuy aji bel talib bay bu nar abdourahman wul wuld abdourahman abdourahman moo fi ñëk jaar joggé makka ci ta bobu gaay gis ko mu waxtaan ak ñoom ñu gis ci mom ay kimtan waji neena man sama ko recevoir mu ñew suma kër ñaanal ñu gis suma soxna nekk ki mu wax ma soxna si doom ju góor ji muy jur mu ne mu juddu ñu tuddee ko ko wax kéemtaan bu bari loolu tax ñoo jóg tey nit ñi nag commencé di wuti bàyyi moomu délégation ba fa njëkk ñëw xam nañ leen maanaam Tidiane yi maanaam Sani Kafanga euh, ak benn waay boo xam ne sax moom déggutoon arab ñun dañ ko daan si tooñ sax ndax la muy sol du changé bu bañ di ko tudde Malayan Sarif benn kii inchangeable yu demee noonu alors bu ñu ñëw fa commencé nag xam nañ li ñuy ut maalam Sani Kaafa moom nga xam ne doom doomam ci ñiy organiser ay doomam ba ne bàyyi man dama gis ne li ma manqué woon manqué waa réew mi yow yaa amee élément boobu ndax tasawuf mystique musulman ñaari étape la jikko yu rafet bàyyi yu bon am conduite sax ci diine mu ne loolu ñun ñëpp ñu ngi ci mais nag l'aspect gnostique al tasawuful maarifi moom lañ amul parce que taxalli mooy bàyyi yu bon yi taxalli mooy takk sol yu baax yi tëjalli mooy yàlla feeñloo ci leeram ba nga gën koo xam mu ne ko nag ñu topp ko nag topp ko ak ak ak but yu leer a leer a leer waa Nigéria ñëw ñoon jàng si alxuraan parce que kënu ku ne xam na ne daara yi nekk kënu war naa jege léegi junni at ñëwuñ ci bàyyi pour jàng fiq parce que xaw borom xam yi kënu démb ak tey ñoom ba léegi ñooy référence yu xam-xam ci Nigéria ak ci mboolem zone bi ñëwuñ ci moom itam pour jàng naxu mooy grammaire wala beneen xam-xam bu ñu war a jàng ci téere donc lan moo leen indi ci bàyyi li indi ci bàyyi mooy li nit war a itteewoo gannaaw boo jàngee alxuraan ba mokkal ko jàng sa diine ba xam koo am am xam-xam li war a ittee mooy xam-xam boobu nga am ak alxuraan jooju nga am naka ngay def ba mu jokkale ak sa borom ba dootoo fàtte sa borom. parce que loolu mooy avantage yu dundu doomu aadama bi tey ci ko suuf kon loolu lañ doon xeeñtu fu ne ñu koy xeeñtu ba ba di ñaan yàlla yàlla dajal leen nag ki nga xam ne mooy xalifa Cheikh Tidiane ñu jàpp ci moom ki yàlla def moo njëkk am ak bàyyi coloré mooy Abdullah Bayero bi nga xam ne moom mooy kilifa. réew mi tey ak démb ak ëllëg Abdoulaye Bagnoro jàpp na ci góor gi comme ni ngeen ko déggee xisa yu bëri na trop te c'est pas c'est l'appel de répéter parce que lépp xam nañ ko déjà mais nag biñ jàppee ci bàyyi ndax dañoo jàpp ne jàpp ba pare am déception ñu ñibbi bàyyi ko walla déet su fekkoon ne déception dina am ci Abdoulaye Bayero lay commencé ku bëgg a dem la ah kooku daal man bi moo ko gisee gisuma dara waaye ku jàpp ci moom da oo ku ñëwaat yokk ñëw ci yow ba pare kay waaye dootoo dellu gannaaw moom la wax ne moom nee na li ma yàlla baaxee ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane képp koo xam ne yàlla dimbali na ko ba nga mos ko dootoo dellu gannaaw da ngay dox rek jëm ci kanam. bàyyi nag Nigéria révolution bi du spirituel rek Nigéria da nga fi bàyyi dugg ku fi takk karawaat ci kanu bi zaat kanu ku fi takk karawaat ñooy la éefar nga ku taal robinet arab na nit naan ndoxi robine parce que tubaab yee ko defar arab na nit ki sol dàll yoo xam ne tubaab yee ko defar arab na euh, sol piis boo xam ne tubaab yee ko defar arab na naan ka coca cola dañ ko arabal comme sàngara parce que tubaab yooyu ko defar yooyu yëpp révolution Baye bi moo ko effacé Baye ñëw ñu gis ko muy sol tissi ñu ne akon ah, kii tisi dara nekku ci même hôtel bu ñu demaat Màkka dañuy préféré di di dal ci tant yi wala ci mbedd yi waaye duñ dugg hôtel biñ gisee Baye dugg otel ñu ne kon nag dugg hôtel am na njëriñ ñu commencé dugg hôtel donc ci biir Nigéria am na ci ay facettes yoo xam ne ku ko doon xalaat ren ba déwén da ci mën a génne téere bu mag boo xam ne mu ngi jóge ci relation Baye ak waa Nigéria rajo dañ ko araamaloon nekk alxuraan kenn war ci war a koo jàng ci ci rajo ñu bind borom xam-xam yi bind Baye ne ko loo xam ci loolu mu ne rajo instrument la rek la lañ ci lañ fa jaarale mooy génn bu ñu fa jaaralee foo foo mooy génn mais bu ñu fa jaaralee alquran alquran mooy génn te te ku ko bëgg aaye nooy defak ak nit ñi nekk makka di julli ak benn ilimaan te euh, julli gi di ko dégg di jàng dégg njàng mi baatu ilimaan bi mën te dem fu nekk kon rajo yi ba mu amee ci waxtu ci foofa loolu moo tax euh, euh, jaamu yàlla mbooloo gën a yomb te yàlla jaamu yàlla gi mu gën a bëgg mooy mbooloo donc loolu bokk na ci li nga xam ne Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu def na ko fii ci Nigéria Cheikh Ibrahim amul rekk ci relation ci mook Nigéria yi ci maslaa dem ak dikk waaye dafa dugg ci seen biir duggal seen njaboot ci biir baay tey fi mu nii mboolem ethnie ethnie bu nekk Nigéria benn mu am sëtu baay wala mu am ku sa tubaay jël doom yi ñu ngi sëy ci Nigéria boo demee ci Yoruba yi baay am na ci set boo demee ci Ibro yi baay am na ci doom boo demee ci Okayni yi baay am na ci doom boo demee ci Awsa yi baay am na ci doom boo demee ci mboolem it yi nekk Nigéria ba ci biir àll bi baay daf laan joxe ay doomam ñuy sëy ci Nigéria du dara lu may

yu am solo la bokkut ak nag li ngeen li ñu wax yëpp ci ko ci euh, euh, semaine bi loolu itam beneen beneen bunte la boo xam ne dafa ubbeekuwaat pour que ñu mën koo gëstuwaat pour mën a seetaat lu mel noonu kon li ñuy sante yàlla moo di ne ñun ay sénégalais lañ et on est fier d'être des sénégalais bu yàlla mayee doomu Sénégal muy dugg Nigéria gàddu walisam kenn xamu ko fi bi mu njëkkee dugg Nigéria kenn xamu ko fi moo gàddu walisam parce que Abdoulaye Bayero mi koo xam Makka la nga xamante woon ba jaayante mu diggoon ko ne ko dinaa la gane si mu ñëw Nigéria wàcc par oto ñëwee booba avion yombul di ñëw ba agsi ba ñëw kanu ba Abdoulaye Bayero yëg ko dali gën tatagal ko ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ko daroon ñoom ñëpp ñu jàppandoo ci Mawlana Cheikh Ibrahim seen doom yi tey ak seen sët yi ñoo taxawal euh, euh, euh, semaine culturelle bi nga xam ne ku wax nga xam ne ko boroom xam-xam nga te seen seen bàyyi ñoo doon borom xam-xam réew mi waaye seen xam-xam dañ ko teg ca gannaaw comme li benn waay mos a def dafa ñëw ci benn sëriñ di ñëw jàpp ci moom. ne dafa bëgg euh, euh, euh, yàlla dimbale ko ba fàttale ko lépp lu mës a am ci xam-xam jàpp daal yàlla loolu xam-xam yépp dem mu ne bugguma dugg ci sama palaasu sëriñ fekk maa nga xam benn baat bi mu duggee ci palaasu sëriñ bi mu ngi fekk benn doomam bu ndaw bu tuuti toog ci wetam mu nuyoo moom ba pare mu ne ko looy dox mu ne ko dama ñëw pour nga jàngal ma lismu laazam tur yàlla wu mag wi bi mu ko waxee rek doom ju ndaw jooju ne ko tur yàlla bi màgg bi doo ko mën a xam fekk nekkoo ko tur bu màgg bi doo ko xam fekk nekkuloo ko yow waa ji xool góor gi góor gi ne ko sama doom ji ne wax dëgg la de soo buggee xam tur yàlla bu màgg bi nekkal tur yàlla bu màgg bi parce que li fi nekk yëpp ay tur la de jëmm ji tur la asa man turle suuf tur la lépp mais borom tur wi kan kiko ko yëngal olof day wax ne lu yëngu lako ko lako la doole te yalla mom moy yëngal qayyumu samawati wal ardi kon lo gis war nga ci gis borom te bo ci gisee borom boko ko yow fay ne bir bi non la bref duñu sori ci lolu ñu ngi sant yalla ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى وما bàyyi ak Nigeria relation bu dëgër la bu yàgg la ndax depuis 1937 la woon ba léegi te bés bu nekk dafay yokk te du wàññeeku mukk bu yàggut rekk ci mois de février invité nañ ma fa man pour ma ubbi fa benn jumaa ci Kaduna bokkoon ci jumaa yi ñu lakkoon ci diggante fitnaay jullit ñi ak chrétien yi naam am nañ ay boroom xam-xam yu leen ubbil jàkka ja waaye taamu nañ ba léegi jële si ko fii ci kër baay pour barke Baye man depuis 1962 laa commencé di ànd ak moom Nigeria ba ci yoonu mu mujj ci Nigeria maag moomu àndoon maa ngi fàttaliku ne bés bi mujj fanaan ci kër buur bi buur kanu nga xam ne Abdoulaye Bayero foofu mooy paleem gannaaw gi doomam Sanusi Amir Sanusi nekk fa gannaaw Amir Sanusi Ado Bayero moom ma fa nekk ba léegi damay wax ne guddi gi bàyyi mujje fanaan ci pale boobu maag moomu fa fanaan ndax dañ ñoo xaajoon ñaari xaaj bàyyi dal ca pale ba àndandoor yi daal kër alaaji ubbaari ngim muqaddami baay bu ñu xam la foofu ca kanu waaye ca guddi baay dafa yónnee ne man naa ñëw fanaan ak moom ci pale bi lu doy waar mooy biñ jógee ci fajar di julli ma nettali baay sama gént mu ne ma itam loolu laa gént ca pale boobu maa ngi koy fàttali buur bi biñ dajee bu yàggut ci sikkari àjjuma boo xam ne lu ëpp million ci ay nit teew nañ ca te ñépp taalibe Baay lañ maa ngi koy fàttali ne bi Baay di mujj ci pale bi maa ngi moom àndoon relation boobu nag jur na lu bari jur na xam-xam jur na itam ay waa Nigeria takk ci jabar fii ci Sénégal ay waa senegal itam dem Nigeria takk fa ay jabar jur na itam relation yu dëgër diggante kër gi ak nguur gu fa mën di taxaw nguur gu fa mën di taxaw rek soxla na kër baay bu yàggut dem naa Nigeria tasante naa ak Obasanjo président Obasanjo ba fa baawam gi daa nekkee itam dañ daa tase moom waaye Uba Sanjo mu ne ma dama bëgg nga dimbale ñu ci relation yi chrétien yi ak jullit ñi ci réew mi ma ne ko diggante jullit ñi ak chrétien yi jàmm rek moo fi war a xew ndax yonent bi sallallahu alayhi wa ci dundam ca jamono ja muy nekk Medina délégation chrétien yi jóge woon Najaraan ca biir jumaa ja la leen recevoir te bañ buggee julli seen julli chrétien daf leen baal ñu def ko ca biir jumaa ja mu ne ma tey fii ci Nigeria su ay chrétien duggoon ci jumaa ne dañ fay julli daanaka déclaration de guerre la ma ne ko loolu yépp nag ñàkk a xam moo ko indi ak réer te ñoo woote daje bo xam ne jullit ñi ak chrétiens yi dañ ciy daje pour waxtaan kenn ci ñoom du wax ne téereem moo ko wax ne demal lakk kër diw walla demal ray diw wala demal tasaare gétti diw te loolu yëpp xew na foofu jullit ñi mënuñoo wax loolu chrétiens yi itam mënuñoo wax loolu ndax fii ci lislaam soo reyee benn innocent saa mu rey wala mu yàq ci kaw suuf mu ngi mel ni rey nga ni ñépp soo sowee benn bakkan danga am yooli ku sowee mboolem nit ñi te yàlla terewuñu ñu jëflanteeg ñoom chrétiens yi jullit ñi mën nañoo dem takki jabar ci ñoom يالا تريو ني جوفلانتي نيوم ناخ لا يانغ تي القران يالا دي واخنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين يالا ايو لين موك نيغا خامنا خيخوني لين تي سين دين генيوني لين تام سين كيري ген باخيلن te ngeen maandu ci ñoom yàlla dafa bëgg ñu maandu ci ñi ñu yàlla tere kay mooy ñi nga xam ne ñu ñuy xeex ci suñ diine wala ñu di ñu xeex pour génn ñu suñ kër yi lislaam noonu la tëddee bàyyi nag lislaam boobu noonu moom la doon promote ci biir Nigeria yépp dañuy wax ne seen borom xam-xam yu njëkk yi dalee ko ci Ousmane Dam Fodio nga xam ne mi ngi fii jógee 1817 bi Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu génnee àddina 1815 ñaari at lañ ca teg Cheikh Ousmane Dam génn àddina 1817 Cheikh Ousmane moom daf leen a béggaloon ci sëriñ buy feeñ si fii ci sowu jant ñoom ñëpp bi bàyyi feeñee ñu jàpp ne mooy sëriñ boobu burkanu comme dégg nga ni la ko oustaz Barham Diop nettale dana nettale ba mu dajee ak bàyyi ca Medina mun a Munawara 1937 dañoo dajee rek mu ne ko dafa am ku ma doon seet dafa mel ni yow la mu ne ko man la seen relation foofu la commencé moo 40 personnes yi àndoon ak moom yépp dal di yees lu ci bàyyi bàyyi demu fa ba 1946 la fa njëkk a dem waaye man 62 laa commencé ànd ak bàyyi foofu أهلا بليل اثني عشر فيه ويومه لغر وطيب ذلك السحر ونور أفقه الجليل بكل ما ظهر من خارق يبتكر بك رفعه البصر إلى مقامه العلي بمدحته الشفيعي بالمنطق البديعي قرب يا محمدي وما رآت من عجب آمنة حين نصب سبابة ثم اقترب بسجدة المبتهلة فليكن ربيعي بمدحته الشفيعي كما تدل الزهر كما ترى القصر فيه وحل الكسر بصنم المجدل تهنئة الربيع بمدحة الشفيع بالمنطق البديع الربيع في باي دي فكنا خادي بريكم نمامي في باريش أفريقيا meluñ noonu seen diggante rataxut yabante mi ngi ci biir xebante mi ngi ci biir mais bi mu ñëwee mission moom Baye mooy c'était pour delloo leen ñoom ñëpp ci yàlla ne leen euh, mbokk gi foofu la commencé leneen li ci des yëpp euh, lu gaar la alors bi dem bi ñëpp demee ba am gëm-gëm boobu ba nga xam ne xam nañ ne ñoom ñëpp comme ni ko alxuraan di waxee innamal mu'minuuna ixwa nit ñi ay mbokk lañ kenn ku nekk fàtte nga li nga dencaloon keneen ki bu jëlee lu mel ni awsa lu mel ni yoruba awsa yi ñoo dëkkee ci sud bu Nigéria eh, xebel gi amoon seen diggante c'est parce que awsa yi dañ daan gis ne ñoom ñoo dugal lislaam ci ñoom la commencé surtout ci jamono dem e eh, yoruba yi loolu leen ci fekk si parce que chrétiens yi ci sud bi lañu appee woon donc musulman yi nekkoon ci nord bi comme ni nga xam ne foo mën a dem ci lu bëri ci àddina bi toujours euh, arab yi indi l'islam dañuy daw zone buy taw bu bëri ñax bu bëri nangam dem dëkk ci zone bi xaw a niru désert loolu yóbbu woon musulman yi nekkee ci kaw tubaab yi comme dañu bëgg ay fleur ak place yu am am ndox en général dañuy choisir dem ci sud bi donc euh, xewel boobu mu yoon seen biir mais bi bàyyi ñëwee euh, effectivement comme ni nga posé question bi fexe na ba dajale leen ñoom ñooñu ñëpp wan leen leen euh, mbokk gi lislaam la mbokk gi tariqa tijaan la ndax principe bi mooy euh, jaamu yàlla sellal yàlla mu munuñ wax ne nañ gëm benn yàlla ba pare ñun ñu wute donc loolu la doon véhiculer ci seen biir ba yàlla dimbale na ko ci ba tey man nga gis ci jumaa yu bari yoo xam ne ilimaan bi dana nekk Yoruba aw say nangoo julli ci gannaawam wala aw say nekk ilimaan yoro bàyyi nangoo julli ci seen gannaaw wala ibo yi wala ñeneen alors euh, loolu yàlla dimbalee na ko moom bàyyi ba dimbalee dimbale nigériens yi ci côté boobu alors loolu moo waroon ci guerru Biafra bi euh, malgré bàyyi sénégalais la mais participé na ci lu bari euh, comme ni ko Yakubu Gowon waxee ñi nga amee cassette bi waaw doon wax na ne dinañ leen ko sottil def na témoignage boobu moom yaa ko bëgg a ci taxaw bu leen bàyyi taxaw ci ger boobu pour unifier Nigéria man na naa copie lettre boo xam ne bàyyam doon bind di avertir talibé bu buñ nangu colonialiste yi divisé bi biñ demee ba coow li métti diggante nord ak sud alors tubaab bi dañ dem ba bëggoon a xaaj jullit ñi jox leen nord bi bay chrétiens ak yoy ci sud bi mom dafa opposé won loolu chargé képp kuy talibé ñuy opposé loolu pour delloo leen ci unité boobu nga xam ne moom la lislaam woote وما الإلياء لا يدلي بساله كفبه damay wax ne rek euh, euh, jaamu yàlla yi nga xam ne dañoo sellal jëm ci yàlla yàlla def leen di support daf leen dimbale ci beneen pouvoir boo xam ne du pouvoiru doomu aadama euh, bàyyi Niass doon ci ñi nga xam ne boo seetee lim réalisé ci dundam da gis ne xajut ci temps bi nga xam ne moom la doomu adama di dund ndax soixante quinze ans yoo xam ne vingt ans yi presque da nga ko jàng quarante quarante cinq ans yi ci nga def ay activités yi nga def ci taalif parce que bi mu amee dix neuf ans vingt ans la commencé bind commencé taalif téeréem boobu ñuy wax ruuxul adab te borom xam-xame tariqa yëpp dañ koy jëriñoo ndax wane na ci li nga xam ne moom la tegginu taalibe bi ak ni mu war a fi mu war a jaar ba jëriñu wane na fi sëriñ bi itam lan lañ yaakaar ci moom ak lan lañ ut ci moom lan la ñuy ut ci moom wane na tariqa benn lañ. foofu wane na ko bu baax a baax a baax di muridisme xaadiriya yeneen tarixa yëpp indi na ko wane na ñoom ñëpp ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk fu ñu jëmee doomu aadama bi mooy jëmee la ci yonant bi bëgg yonant bi loolu jëmee la ci bëgg yàlla ak jege yàlla donc euh, euh, ci euh, fukki ak juróom-ñeent ci la commencé génne ay xam-xam Euh, dëgg la bi muy xale bu tuuti yàlla génn na ci moom ay màndarga yoo xam ne ñi ko doon dund ak moom ak mag ñi xamoon nañ ne xale bi moom dina dina réaliser dara dina doon dara ëllëg mais nag ci 19 ans la commencé bind nag ci arab yu wér yoo xam ne ba léegi ji mu ngi yéem ñi nga xam ne ay jànkati arab lañ euh, ci nu mu ak nu mu matee ak nu mu àndee ak euh, sunna ak hadis ma ne mu ngi génnandoo ak laa Alaaji Malick ci même at bi Euh, daanaka li rawante ñoom ñaar bëriwuñ ñu doon ñaar ñoo xam ne dañu xotti woon seen tànk ci liggéeyal euh, seen borom ci tasaare alquran ak ay euh, idéologie am ci jàngale tafsir ayat firi alquran jàngale hadis yonent bi yee ca wér ak yee ca wérut ak lan lañ cay déggee ci ay njëriñ jàngale langue arabe samp ay daara ki école yoo xam ne dañuy jàngale langue arabe yàlla may leen ci itam ndam wax dëgg yàlla. Euh, gannaaw 22 ans yooyu nag euh, ci la papam génn àddina mu topp magam bi ñuy wax euh, Cheikh Mouhamadou Khalifa nga xam ne mooy bàyyi Seydou Lamine ak Ahmadou Niass ak seen mag El Hadj Omar Niass mi Khalifa Léona Niassène ndax seen bàyyi moom la defoon xalif xalifaam ñoom ñoo ñu topp ko di ko liggéeyal di ko bayal di ko jàngaleel ci daara yi ba nga xam ne ba 1929 30 ci la ci gàmm goo xam ne ñu ngi ko doon def magam xalifa bay xalifa jiite ko ci la jógee ca fajar daal si kar si kar bu bu ñu ràññee mooy bi ñuy samaaw léegi daal di ne la ñu doon xaarte Cheikh Tidiane digal ñu ko muy faydatu Cheikh Ahmad Tidiane yi ci man la ñëw képp ku bëgg a jaayanteeg Cheikh Ahmad suma loxo ngi nii jaayanteel ak moom euh, mu def perturbé gàmm ko lool wax dëgg yàlla am coow yu bëri yu ci am euh, am ñoo xam ne jàpp ne feebar la am ñoo xam ne dañ ne hôtel eh, la am lo amul la am lolu mais nak biñ démé ba ca kanam gis nañ ne lim doon wax dëgg la actuellement lan mo eh, am ci Nigeria ba fa bay duggé ak légui lu kéman lu doy war la génération bi nga xam ne ñoo dundoon ak bay njëkkoon a jël ci moom presque fi ne mën naa wax ne ñi ci des bari wuñ maanaam Isaaka moomu di eh, xalifa bi ak maanaam Ismaïl ak ñu néew ñoo xam ne fekke nañ ko ñoo ko fekkee am na ci koo xam ne ci ña la ci la bokkoon barki dem bi ñu fa nekkee la génn àddina muy ko ja wante ñi jàppoon ca bàyyi ci jamono yooyu doon mu xadam yi kàngam ñoom ñi ci ëpp génn seen doom ñoo yore léegi xale yi ngeen gis ñu organiser semaine bi doom yi ñooñu la parce que bi ñu bëggee taxawal commission bi dañ tànn doomi mu xadam yooyu nga xam ne jàng nañ ñii seen bàyyi ñoo leen jàngal ci école yi nekk foofu ñii ñoo ngi ñu noo àndoon dem keer bàyyi yóbbu ñu keer ñu dem jàngi euh, Égypte ñooñu ñoo ngankoon euh, délégation bi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wax anglais di wax français di wax wolof di wax hausa di wax arabe ay xale la ñoo xam ne ñoo génération future bi nga xam ne ñooy ñoo war a jël responsabilité bi waaye li ma la mën a wax daal fi ne nii mooy Nigeria ak estatam yi euh, yu bëri yi région am yi uute yi amul benn région boo xam ne danga fa dem te fekkoo fa doole joo xam ne mu ngi fa nekk pour taalibe yi ak njaboot gi ak organisation am ay jàkk am ay centre bàyyi fu mu demoon ci àddina li mu njëkk a digal mu xaddam bu ko bu ko yaree ba mu xam daf koy wax ne ko na nga taxawal jàkk taxawal lekkool ndax ñaar yooyu mooy guider l'islam soo ko amul mënoo nekk koo xam ne da ngay conduire nit ñi ci l'islam pour nga nekk exemple moo tax école yi bëri nañ lool jàngu yi bëri nañ lool boo gisee Nigeria dem léegi ba nga xam ne muy ñëw ci ay régime islamique c'est-à-dire formation yooyu dañu bëri école yooyu dañu bëri ñu ñu génneel ba nga xam ne fi ne nii euh, loo foo wax lu jëm ci lislaam dañ koy gaaw a accepté dañ koy gaaw a nangu. ba nga xamee ne loolu am na nag wax dëgg yàlla euh, gouvernement yu wuute ci Nigeria ànd nañ ak baay ni ki Yakubu Gowon ni ki ni ki moom tuddati euh, Sardawna ni ki général Eronsi ñi nga xam ne catholique la tamit bu ñu faloon na ji wala ñu bëgg fa falu dañ daan ñëw ba Medina seet si Baye parce que kum ci àndal euh, rek euh, da ngay am lu am solo ci mbooloo loolu moo tax dañuy bëgg ñëw mu ñaanal leen dañuy bëgg ñëw itam ba mbooloom Cheikh Ibrahima ci Nigeria xam ne ñii Cheikh Ibrahima accepté na leen wala bëgg na def na leen comme ay doomam loolu moo war waral yàqu bu gawoon ñëw na fii ñeneen ñëw nañ fi ci léegi nag bi nga xamee ne dem nañ ba nga xam ne euh, àddina léegi nekk na benn néeg nekk euh, benn place boo xam ne euh, looy wax sa moroom mu ngi koy dégg mu ngi koy déglu di janoog yow di la dégg te loolu bu njëkk ci jamono njëkk yi amuloon dafa jot fi ne nii pour fayda boobu nga xam ne moo la bàyyi ndi woon ñu moderniser ko réorganiser ko mu dëppoo ak jamono. ndax ñoom seen bopp am na ñuy wax ne taalibe bàyyi egg nañ cinquante millions ci biir Nigeria waaye am na seen boroom xam-xam bu ñuy wax Cheikh Tahir baw ci bokk na ci boroom xam-xam ya gën a mag ci réew ma tey wax na ma ne taalibe bàyyi mat nañ trente cinq millions ci biir Nigeria faylu bi noonu la fa tasaarooyee soo demee baw Bauchi Maiduguri Kano State Zamfara state Lagos state Ilori réew yi yëpp soo fa demee da ngay foog ne fa la bàyyi nekkoon sax ndax ñaari tax yoo compté bu ñetteel ba danga nga porte la bàyyi waaw noonu la mbiri bàyyi tasaaroo ci biir Nigeria ñi do jullit ak ñi dowut jullit ñëpp dañ ko accepté di ñëw fi waxtu wu nekk di ñaan lu yàlla su ngeen fekkee woon gàmmu gi ñu génnee nii ñi jógee Nigeria pour ñëw ay téeméeri téeméer lañ jógee Zamfara jóge Kano jógee Abuja jógee Kaduna jógee Lagos jógee Ilori jógee Kwara State jóge ba may Maiduguri ñii ñëpp gis nañ leen fa te ba léegi sàmm kóllëre gañ façon ak bàyyi rek ci lañ nekk ba léegi wa ma yantiqu anil hawa xam nga Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu phénomène la ci feeñam ci Maroc mooy ñi ko njëkk nangul ñëpp contrairement à l'accoutumée ñooy boroom xam-xam yi nit ñi yonent yi sax ñu ndaw ñi leen daan topp ak ñu mënul dara ñi bañ ñi ñi door a ñëw mais kii nag ulama yee ko topp ndax ñoom il semblait chercher quelque chose euh, ñëpp ku ci nekk kuñ def muqaddam rek ngay liet naa buy doxal dañuy jàngale dañuy firi alquran dañuy gàmmu dañuy jàngale fiqu tariqa bi dañuy def ay wasifa ak wirdu bi istimrar ay nit la ñoo xam ne ku nekk reflété nga bàyyi alors nag loola nag moo continuer quarante quarante sept huit ba mu ñëwee fii ba cinquante ñëwaatu fi cinquante et mooy deuxième pèlerinage am bàyyi mu def ci téere boo xam ne note de voyage boo xam ne daf ko woy kéemtaan la li xew yëpp fii daf ko nettali mais ba mu ne cëpp kanu nee na xiina alawtu kanu min duaay buri ka fii kanu madal anaay bi avion bi déey déew kanu ma ngi leen di ñaanal dèjà mu ne ba mu wàccee xiina nazartu sama qad dahaani maa lam yakun wallahi fi xusbaani ba ma ne cëpp kanu gis naa lu ma musta foog ci accueil ak ak nit ñu xiir te bari آه، وقد تيقنت بان الله يجري الامور كيفما يراها من مور مركي ساسن يالا دال نكو نيه لاي دوخالي مبيري من بمنان اين ذا الشيخ الذي يعنو له رقاب كل بزي واين برهام وما برهام حتى فنوا في حبه وهاموا من منان صح ومي كي نيب دي سغل ديكو فونكو كان لا مي مي مي من صح مو خمو برهام فارياسيون ابراهيم لا ku tudd Ibrahim mu ne ñooy Barham Abraham Barhum Abraham ay kii la mm, mu ne ana mu ne ayna Barham sax ak luy Barham waxul kuy Barham ah, mu ne daal moom keroog daal gis na lu musta gis te dal na ko ca gànna ba mu fa jaaree ci yoon boobu nee na nee na dafa dem fenn nit ñi dal ci koom ñu yéegalal ko ci avion bi mu dem beneen dëkk foog ne dafa am rendez ak humanité yëpp mu ne mu dem commencé nit ñi teeru ko mu foog nekk tey daal maa ngi fàttali ko bés penc ku mën bind la xam nga ku mën décrire la voilà mouvement boobu moo continuer mais ci méthode bàyyi amul dara lu mu tëral lu ñuy dajale fii di ko yóbbu Medina lu may ci coobare amul cotisation mouvement bépp amul cotisation mais nag ni ñuy jàngee ak ni ñuy jàngale ak ni ñuy échanger ay lettres ak ay circulaire ak yi mu leen di digal ak mbóot yi ni muy demee yépp kooku méthode la boo xam ne ku ci bindoon ëllëg day gis système bu doy waar sëñ Aliou Cissé nag radiyallahu anhu ñiy jóge biti waxuma ku gànnalee nit de dalal ko sukar yooyu mais moom moom mooy buntu bàyyi ku muy jox dara ci moom lay jaar ñooñu nag sen liggéey mooy li nga gis fii tey am ans amir Sultan, bu mag boobu doomam moo fi mujj ñu wax na 1966 après coup Iransi bi mu daanee woon fi ko militaire parce que moom dañ obligé euh, démissionner pour des affaires internes affaire sectarisé mu ngi ca kooku moom bi biñ ko wàccee te itam sañu la toog fii sañu la toog fu ko jege yóbbu ko fa sori ci biir réew mi waaye dafa yónnee rek benn réaction bu légitime ne def na ko xalifaam fii mu nekkal ko fi oto yi di jógee Cameroun nag fu nekk di ko siyaare si

الفؤاد ما رأى بسم الله الرحمن